ma sañ naa wax xanaa ku ne am na droit nag wax la nga gëm. ak li ci yow. moo tax loolu seede ci biir nit ñi. ah loolu ndax tout tànk bii ñëw leer gi. Mhm. daa bari lu mu leeral bari lu mu firndeel. waaw moo tax ma ni comme nee nga wax jot na dinañ junj. waaw incha allah waaw dëgg moo tax buur li mu rëy mooy. xam nga Sénégal dina dëkk boo xam ni. Mhm. tey di nga dem ba ci benn côté. Mhm. mën nga tiit. mën ga tiit ci doore. parce que di nga sax nit wax nga ni mais kii wax nii lan li wax fu mu ko teg. doo nekk lu la yàlla may may da ngay poser question nga naan nit ki lan la mën a tëb rek wax lii léegi nag bu la yàlla mayee ku mel ngay dund ak sa soxna ci lu mel noonu dina toll foo xam ne nag après ak ku mu a doon nit nit la di nga xalaat nag ni dëgg-dëgg lii lan la war a mën a doon ak lu tax ñu wax lii mooy li buur wax mais tey li wax rek lu bari leer na macha allah te te yàlla dogal na tey ñun ñëpp sëriñ si am na ñu ñëw am na ñu des tey bëri am na ñoom tey waxoon nañ ko avant da nga jàpp ni erreur la ndax ñu ngi ñëw nii te di nga leen gis ci bâche bi kon da ngay jàpp ni loolu erreur la du seen bon loolu la boo leen gisee accolade leen laay def dalal leen ñu toog lii problème bi. parce que sant yàlla mënut a weesu man rus naa tey ni damay toog wax ci buur. parce que su ma waxee ci buur sax buur bu amee xel dina ni waa kii moom nangam waaye mais kuy nit ki nag ku sañoon ñuy wax ci yow. am déet moo tax côté boobu dañ ciy sant yàlla amuñu ci problème la. ok léegi la. Ah, ñu waxee xaas wala waaw waaw xam nga am na ci sax ndeysaan fu jotoon jaar loolu laa ci yem. damaa jógee Daaru Salaam ñëw fekk bu julli jox ma ma dékki nekk yow boobu na def na la toj na toj na dëkk ba pare te yëgu ma aw ma ci lu dul xëy taal internet bi rek vidéo yi commencé mu naa ne lii nga may ñëkk wax parce que yëguma ko man kii tey li ci xolam la génne da koy nangul nit ku ne nit la am na loo moom loo xam ne nit ki moo ko moom da nga ko koy yàlla gën leen a bàyyi gën leen a dëgëral ngeen am njaboot gu barke waaw Sénégal moom ko yebu di ñaan lool rek ndax dëkk bi daa doy waar classe buur gi dañ fi bëri <laughs> merci euh, ànd ak nit ki ci àndu nawle àndu ngor àndu dëgg fexe ba bu indi ànd euh, bu loru dee jot fexe loru bu jariñu dee jot ngeen ànd jariñu wala mu ëppale la gis nga noonu boo koy àndee nit dina mën a yàgg te euh, bu leen yaatal leen seen diggante te di leen am communication xaas léeg-léeg wax ak boo xam ne que jot nañ ci lu yàgg ba waxtaan ci lu yàgg buy ak sa fekk romb nañ ko jàll communication moo indi loolu mais léegi média bi nekk nit ñi dina am melokaan boo xam na que bun gisee lu ñaaw dinañ sawar tàllal la ko ne la eh xoolal lien bi waa lii num demee lii num demee mais buñ gisee lu rafet maandu xam tamit loolu day nuru ne nit ki euh, ennemi serveur la quoi maanaam noonu privé la te loolu baaxul nit ki boo dee da ngay ànd ak moom bëgg mu rafet boo gisee lu rafet rek wax ko boo gisee leneen eh, wax ko bu ko defee ñu xam fu ñu teg seen tànk daal. loolu mooy ñu ngi ci tudd. Hmm. moom moom tey du journaliste. Hmm. ah la. doomam la tudd si. seex du journaliste de seex tey bu kër jox laaj leen ko. liggéey bu jëloon bu yàgg mu wax ma seen diggante. ma waaw laaj leen ko tey. voilà waaw gis nga ñun ñu mel bis bi sama bisu bopp la. Euh, dama ko def comme sama yëfu bopp parce que. nit ki boo xasee ba ne sa nit la. da ngay assumer lu mu mën di doon ngeen dem ci te defe naa romb nañ étape yu metti te euh, saytaane fu mu xañul lay dugg. mais ñun defe naa musal nañu sori nañu daal parce que li ko indi lépp nag ànd ci dëgg la ni ma ko waxee mooy yéeneent dëgg wax dëgg def dëgg te yéen a jàmm nee naa leen milieu showbiz bii ku gàttul tànk gàttoo làmmiñ mënoo muñ di nga dem ba yor jikko boo yorul woon te boo ko yoree di nga ko rëcc jikko taali bi nag ku ko am tee ko junni loxo pour bañ ko ñàkk mooy di muñ di rafetal di masla boo jàppee nit nga d'accord pour loru pour mu jariñu wala ngeen ànd jariñu wala ngeen ànd loru te bu mënul ñàkk yow kese na nga loru ànd sutura daal ak nawle. ay al àdduna yëpp doon ay deuxième daal. mais Cheikh Talif tojkaan bi ak ay sëriñam. Hmm. waaw waaw xam nga tojkaan bi ak ay sëriñam euh, loolu daf may xaw a métti benn côté. parce que ah, man bëgguma non bëgguma daaneel nit. li ma ëppal solo xam nga nit ki ki daaneel boppam kooku man mënu ma ci dara mais man du ma daaneel nit parce que bañ naa ko ba bu nit waxee dara mu am. am na koo xam ne que 2019 dafa waxoon ne kaan bi ci topp. Sénégal da koy jël damaa jëlaat loolu indiwaat ko te pourtant fàtte woon naa ko nit ñi ñoo ko wax ba ne boole na ci sax coupe du monde yu mel noonu man sagu nit laa bëgg mais fi problème bi nekk mooy ku daaneel boppam loolu mënu ma ci dara mais sëriñ si bu ma sañoon ñëpp am jàmm ñëpp kii ñu moytu média lu mel ne lambu ak football ak élection loolu dafa doon lu xaw a sensible loo xam ne. bi ñu ko gisaatee ñu bari am na lu leen naq. waaw na lu leen naq mais nag dañ jàpp nañ ko jàppee ngëneel xam nga ku ne la woon naa la jox 3 millions. 3 millions yi ñëw mu jox la 2 millions 500 tas na sa yaakaar ku la ne doo jël coupe na nga jël coupe da ngaa war a sant yàlla comme bu newoon coupe bi day ñëw. coupe bi ñëwul foofu moo metti waaw mais ñu ne la coupe bi du ñëw coupe bi du ñëw coupe bi ñëw bu nu amoon leneen lu ñu mën a sargal sax sargal leen ko parce que bu ne coupe bi du ñëw day am ñeneen ñuy ñaan pour mu ñëw bu ne bi day ñëw day am ñeneen ñuy ñaaw pour mu bañ ñëw. kon nag sëriñ si yi nii euh, nañ leen sargal dañ leen war a fay sargal leen bu baax a baax incha allah jërëjëf merci Cheikh kañ la ñuy sëyi su mu léegi rek ma moom tam su ma nee kañ la ñuy sëyi ma ne ko léegi rek nañu ñaan yàlla may ñu jëkkër yu baax waxuma baax ay alal ak yooyu jëkkër ju àntat ñëpp de déedéet mais jëkkër ju baax ju yaatu ju uuf ñëpp loolu lañ doon ñaan yàlla te loolu lañ suñu borom bàddil kon na di def lu bu baax a baax a baax moom léeg-léeg booy dégg yenn wax yi ci internet bi nooy dunde loolu ah xam nga oto bu moom la ñëpp di corné waaw yàlla yàlla moo ko yàlla moo ko yóbbu ci côté boobu kon ñun ñi nga xamante ne ñun ci ginnaawam lañ nekk di ay magam ak ay mboqam dañ koy dundee rek comme comme comme comme noonu dañ koy dund noonu rek duñu duñu stressé sonal parce que tam wax moom nee nañ jógewul fa dëkk comme fu mu la cosaanoo waaw loolu la wax di bon nañ ko bàyyi ñu bon rek waaw lu baax li nag lu baax ñu baax ñu jël ko loolu la kontaan Mbaye ah, yow ngay wóolare sëñ Abdoulaye Diop Xaas bu yàgg nga xam ci moom lu bari ngeen doon démb tey ah, moom ak Soumboulou Bathily tey seen doom jii di soxna Diarra Bousso bisu mbégte ah, lan nga ci wax. waaw sëñ Cheikh wax dëgg yàlla di ci kontaan trop wax dëgg yàlla ndax sëñ Abdoulaye moom wax dëgg yàlla bis bi mu am jóobu ko te sëñ Abdoulaye dafa doon koo xam ne wax dëgg yàlla doon koo xam ne ko yàlla baaxal la doon koo xam ne wax dëgg yàlla maanaam. soppee Sénégal la dama wax sëñ Ablaye mooy Sénégal ndaxte bis bi jomb ko sumbul tamit doon ko xam ne ko baax te jàmbur trop wax dëgg yàlla man ngaa yéeg ci kaw ba pa wàcc doo ko gis wax daal sëñ Ablaye wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla dafa ko jàmm dafa ko tawfeex waaw di ñaan doom tu tànk bi ñu am yàlla gën a guddal fanam muy soxna jaara yàlla yàlla barkeeloo yàlla doon tunu doom kon daal bisu mbégte la daal bis boo xam ne que euh, sëñ ci benn minute nga nu résumé baaxaayam ak sumbulu lan nga ci wax. waaw sëñ Ablaye wax dëgg yàlla xam nga say seex yàlla moo xam boole maanaam sumbulu dafa baax sëñ Ablaye wax dëgg yàlla bu baax téye boppam sëñ Ablaye wax dëgg yàlla xolam maanaam moom yàlla ko yàlla fay xolam rek maanaam su ko yàlla fay xolam rek lépp lu mu wut ci àdduna lépp lu mu am nag xolam moo ko may ndax sëñ Ablaye ñëpp la yéene jàmm bëgg ku ko mere ku ko mere sax fexe naa jubóog yow wax ci yow lu sëñ Ablaye daal di ko ñaanal yàlla di ko bàyyeeg maam Cheikh Anta Mbacké borom dërëm ak gërëm jërë ngeen jëf sëñ Cheikh sant nañ sëñ Modou Mbaye jërëjëf jërëjëf jërëjëf